لولا أن هدانا الله الحمد لله حق حمده نحمده تعالى على ما أكرم من الصيام والقيام الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا رسول رب العالمين أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا mbokk yi dañuy sant suñu borom jalla jalaaluhu ci ay xiiwalam yu rëy ci ay xiiwalam yu tar bokk na ci xiiwal yooyu mooy weeru koor bokk na ci xéwal yooyu mooy alquranul karim weeru koor moom borom tabaraka wa ne kullu amali ibni aadama lahu illa siyaam fa innahu lii wa ana ajzi bihi na lépp lu nit ki def boppam la ko defal mu def koor mu ne koor man lañ koy defal borom bi tabaraka wa ndax ci woor ci ngay nuroog malayka yi malayka yi du lekk malayka du naan malayka du def leneen lu bokkul ak li ko yàlla digal heure bi nga wooree nag booy nelaw sax yaa ngi am tiyaabu ci nelaw googule mu doon occasion bu rëy ndax ramadanu ila ramadan mukaffiratum lima baynahum nena bo wore weru ko yallah mayilla okavio gaddumdat be ɓenen weru kor ñawat nena leppulo defon ci bakkaha borom bi tabaraka wa taala fo balla ko mu mel ni kula jox saabu ne nenal nga sam set wecc sangu ba set wecc boobu nag nga war a dajeeg sa borom jalla jalaaluhu wa azza kamaal karim nga xamante ne dafa tëdd muy kàddoom moom yàlla jalla jalaaluhu wàccee ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ku gën ñépp mu jaar ci sayyidina jibril alayhi salaam mu mbooleen malaayka yi mu ko ci weer muy wax ramadan weer boobu gën fukki weer yi ak benn bi mu wàccee ko ci guddi guddi ñëw gën bëccëg mu wàccee ko ci laylatul qadr guddi googu ñëw gën mbooleem guddi ya waxuma sax waaye ca siècle ba mu ko wàccee siècle boobu moo gën ci mbooleem siècle yi siècle moom mooy maas mooy téeméeri at yi ci téeméeri at yi nga xam ci la alxuraan boobu walla siècle boobu moo gën beneen siècle la ko jiitu ak la mujj ndax xayrul quruni la yonent bi wax karn yi li gën ci maas yi mooy maas bi nga xamante ne man ci lay tudd sallallahu alayhi

melokaanam yu tedd ya motax yalla ñu ko yalla yombalal li di koy sant moom borom ñu defalee xiiwal xewal bobul nangu nit mom mo am ci ñun kaddu bu diglé di lek di naan ak ndox ba la mu sedd ak la mu manti tàng ak mu manti saf lam ko defare ci suukar la leneen sale ba buñ ne asalaatu min an-nawm nga tek lutax nga ne dafa am ku ma digal mooy yalla ci bëccëg bi sa bët yi mën a xool sa tank ak say bëgg-bëgg lepp nga régler ko ngir ne yalla moo ma digal nga dema dem be timis nga do ko ga ne yàlla ma ko digal kon yalla rek mom mo am droit ci nit ko defal ala baye te xëy na nag ki ko nangul moom borom bi tabaraka wa taala di seede ne ki mu yónni mooy Seydina Muhammad dafa paraate dafa wóor ñu gis maanaam dafa toog jamono weeru koor yegg wax ci kanamu weeru koor yegg na ñu gis waxinam changé doxalinam changé lan doon def ci lu baax mu gën koo renforcer lamu mu doon loo xamante ne du ko doon def lu dul wéeru koor sax mu di koy def ci koor kon pour woon la ne moom dafa ñëw pour woon ñu naka la ñuy jaamu yàlla xoto nit ñi danaa moom yonente boobu bu yegsee ca waxinam ak ci jëfinam yal na yàlla wàcce ci moom yiw yal na ci moom teraanga boo delloo ci alquran ci suratul baqara mu yaa ayyuha alladina amanu woote la de waaye ñi gëm yàlla lay woo na kutiba aleykum asiyaam koor farataal nañ ko ci yéen du yéen kese na dama kutiba ala alladina min qablikum li leen jiitu dama farataal ci ñoom koor kon dippi ca aadama ba aadama wàcce ci kaw suuf ci la koor tàmbali ndax sayidina adama ba mu buggee jéggalu ci yàlla yàlla yónnee ci moom ay kaddu fa talaka adama rabbihi kalimat ay jëf ñoo jiitu kaddu ñoo tegu ci jëf ya mu ne ko dangay woor moom mu indi mu dal di woor ñetti fa yàlla dal di koy jéggal kon yàlla depuis ba nit wàccee ci kaw suuf ci histoire ci la koor nekk farata ci moom ñu ne ko yow yàlla lu tax nga intéressé wu ci koor coono bi ci nekk xiif bi ci nekk maral bi ci nekk lu tax nga teg ñu ko yow yàlla li laallakum tattaquuna ngeen man caa defaroo ngeen man caa defaroo kon loolu moo tax yàlla wàccee koor te nit defaru la soxna te ndax aljanna assaalihiina inal arda lillahi yarisuha ibadiya assaalihuun nee na ñi baax ñi defaru ñooy dugg aljanna même sa néeg lu defaru rek dafay dugal sa kër lu defaru rek dafay dugal yére bi bu fekkee ne defaruwul boo ko dugal ci armoire bi génnee sànni matériel boo mënti am te defaruwul rek danga koy jël sànni ko ca poubelle ba waaye lu defaru nag moom ngay fat sa biir kër fat sa biir néeg fat sa biir armoire kon yàlla la muy fàtte aljana mooy lu defaru moo tax mu nekk op dama ko farataal ci yéen da ngeen a defar koor boobu nag lan mooy symptôme mandarga yi wane ne yaa ngi ci koor ndax nawet dafa am mandarga da gis ndox gis ngelaw gis dënn bu amulee rek tuddagul nawet kon koor itam dafa am ay màndarga boo àndeeg moom nga gis màndarga yi ci sa bopp wala nga gis ko ci keneen bu boobaa nag yaa ngi ci koor boo ko defee rek da ngay bokk ci la yonente bi wax ne rubba saa imi bari na ku na dafay xiifal rek dafay maral rek koor ga parce que yii mu lay tuddal te dana la ci tuddal juróom-ñaari point ci gàttal yoo xamante ne weeru koor danga war a lamboo melokaan yooyu nga mën a saf koor sa koor gi mën a saf itam yàlla a saf itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu njëkk xiyaamul layl di jóg guddi yeneen weer yi yeneen période yi bu dee sàgganoon nga ca bu weeru koor jotee bokk na liy wone ne dundal koor weeru koor mooy jóg guddi ndax yonente bi noonu la ko doon defe te moo ne xool leen ni may defee ngeen di defee nga dem ci alquran mu ne wa min alleyli fa tahajjat bihi naafilatan lak mu ne bu guddi jotee jëlal ci alquran bi nga yokk ca yàlla te mooy naafila naafila li mu fi mooy yokk mu ne asa an yabaasaka rabbuka makaman mahmudan xëy na bu ëllëgee yàlla dina la yebal foo xamante ne boo fa taxawee ñëpp ne jërëjëf est-ce que lii nga mérité woon kon jóg di ci wéeru koor dafa bokk ci liy wane symptôme yi wane ne yaa ngi yaa ngi woor sa koor gi nag ci lay neex yàlla nga dem ci xadis yonente mu ne waalam anna sharafa al mumin te yaamuhu bil layl mu ne xam nga jullit lan moo koy yëkkati ca yàlla mëna a jox guddi kon bo doon jox guddi gi amo martaba ca yàlla motax mu ne la ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wa wala amalu saalihu yarfaahu il faut mo ànd ak jóg guddi gi pour la ngay liggéey mën yëgg ca borom bi tabaraka wa taala dafa mel nga bind message te posté wu lo ولا تيجي ما نبيني نبيني مشاف تا أكتبه ولا أكتبه ولا من ما هو يكويس بدل كن بوي جو بدي لبلو ليجي لبلو واخ دفع يجي تيا الله وتحمل وعلى أن شرف المؤمن قيامه بالليل تحنا بيجي نتبي عليه الصلاة والسلام بوي الكور جتور دفع دون نافلة yeneen weer yi gën a doon naafila waaye weeru koor ni ko doon defee daf ko doon gën a renforcer moo tax kenn ci saxaaba yi ne ca weeru koor ga gis naa yonent bi ñëw kàmbar naafilaam yépp nag du passé fukki rakka ak ñaar loolu yépp pour yaram xeet ak a baax moom yonent fukki rakka ak ñaar du ko passé waaye bu weeru koor jotee nag dafay jël beneen intelligent dafay intelligent ci ni muy defee fukk ak ñaar yi lay maintenir waaye ci biir loolu nag dafay renforcer nag rakka yi waa ji ba mu jotee ca wéeru koor ba dugg si fekk yonent bi di julli mu ñëw kàmbaar ci gannaaw yonent bi jàng faatiha ma foog ne lay doon comme ni ko yeneen weer yi nee na ma foog ne xanaa bu demee ba ci kanam dana su roxoo nee na maag moom maag moom maag moom mu nekk ci soratul bakara ba jeexal ma yaakaar ni xanaa bu ko jeexalee dana rukkoo nee na ba mu yéggee fa muy jeexalee sooratul Bakara rek continuer déclenché sooratul Ali Imran te xam ngeen ne sooratul Bakara bokk na ci saar yi dina gudd ci alquran ci jamono nag da ngay julli distance bu gàtt trente minutes wala une heure de temps ñu ne dafa yàgg ci jumaay te pourtant distance ba ñuy def ci feneen moo gën a yàgg. jaamu yàlla moo ñu tax ci kow suuf na oyof am na bés bu yowmal qiyaamati jotee benn naaj bi jege si ak tàngoor bi xoolal mbooyoo bi keroog yàlla yonente bi na ñi koy yàlla di oyofal mooy jokkatu guddi yi ñiy jóg guddi nangoo taxaw lu yàgg ñooy ñooy ñi nga xamante ne dina oyof ci ñoom kon booy julli bul ne imaam bi affaire bi dafa yàgg am na ñoom bu ñu ko muñ fa dañ dem ci imaam bi ko affaire bi nag dafa yàgg gars yi dañu yàkkamte loolu yàkkamte foo jëm te lépp loo def ci kaw suuf jaamu yàlla moo la fi tax ma xalaqtul jinna wal insa illa liya benn mission nga fi am du lekk ak naan moo ñu fi tax te boo booy ñëw ci jumaa ja dangaa lekk ba suuf jóge ci jumaa ja yàkkamte waat bool yi moo tax nga ne dafa yéex boo demee nekkaat boo paree yootu sa lal ah kay jëlal sa ruuxu bi nga jox gëddëm comme ni ngay joxe sa cër bi gëddëm boo ko joxee gëddam te ruuxu bi moo gën a laaj ci weeru koor gën a la jol ruuxu bi xañ jëmm ci gën a la jox jëmm ci lu tuuti jox ruuxu bi lu gën a rëy nee na yonente bi déclenché suratu Ali moo foog ne xanaa bu demee bi ci kanam dina ko dem ci ba mu jeexal saar ma ne xanaa bu jeexalee saar ba muy jeexal rek nee na mu déclenché suratu Nisaa nee na foofu nag tuuti ba def lu bon nii la ko waxee mu ne tuuti ma def lu bon ñu ko loo nag ci lu bon li mu ne mooy maroo koo dagg julli la kon nga ne fii imaam bi dafay yàggal nga toxu ci beneen jumaa yaa ngi def la saxaaba bi di wax kon xoolal yonente bi lu mu renforcer moom moom soratul nisa teg ci soratul maida teg ci soratul anaar dooralu ko nii la ko defee sallallahu alayhi wa sallam fukk ak ñaar la waaye rakka bu ci nekk nee na bu rukkooyee dina rukkoo lu tolloog la mu taxaw bu sujudee dina sujud lu tolloog la mu taxaw nga xool Seydina Usmaan ca weeru koor la woon ne kenn gisaat moo koy nett nee na ba ñu selmale fukk ak ñaari ngir àq nit nee na ma taxaw ci maqaama Ibrahima rek nee na ma seen Seydina Usmaan yegg si mu taxaw di may xaar ma sëlmal foog ne def ma soxla mu ni ndax duma may tuti ene mu taxaw ci maqaam yi ma ba ma ne comme khalifa bi la xaaral ma xaar ko bu ma paree waxtaan ak mom wax ko samay do ya ak samay soxla ya aduna nee mu kàmbaay jëlee ko suratul baqara mom mom mom mom mom mom ba fajar ba di xotti mu yegg ni na jinnati wan nas ni lañu xam kon ni ni lañ doon dundalee weeru koor moo tax bu weeru fexeel nga forcé waat sa bopp sawaral sa yaram pour mën a jot yeneen boobu nga xamante moom la yàlla di seddale ci guddi yi weeru koor moo tax alayhi salaatu wasalaam mu ne guddi man qaama bi ashri ayatin nee na lam yuktab min alxaafilin nee na fukki aaya boo ko téye di koy tari guddi gu ne di koy naafila fukki aaya nee na bokkuloo min alxaafilin ci ñi sàggan man kamal layla bi miati aaya bu dee téeméer la ne na yuktabu min al qaanitina boo jàngee téeméeri aaya ne na bu boobaa yàlla boole la min al qaanitina qaanitina mooy jàmbakatu yàlla yi dëgg la te mooy soratul waaqiya masalan boo ko boolee soratu bariwul aaya bariwul te man kamal layla bi alfi aaya nee boo fexee ba jàng junnee aaya nag yuktabu min al muqaddirin ci lañ lay boole nag ci ñi milliardaire yi ca àllaaxira koo fi ñaana yàlla nga am milliard mu ne la amin fii ci àdduna te danga ko fiy bàyyi bu àllaaxira nag boo buggee bokk ci ñi gën a bari na fexeel guddi nga jàng junnee aaya te boo ci tegaatee fukki aaya rek am nga junne aaya bari kon guddi gu nekk nga jàng benn juzu moo xam juzu amal juzu tabaara juzu katsami noonu nga koy defee ni ñu séparé al alquran technique bu baax la xam na loolu yëpp wala kat yassarna alqurana li zikri yàlla ne maa leen ko yombalal pour ngeen am technique yi ñu koy jàngee am na juzu am na xisib am na robo am na nisfu yooyu yëpp mu ci yoo xamante ne man nga ci programme wu ci weer bi da nga man ci am bu dul nga am ci ñaar ba ñett ba ñent bi fukk ko kon joggu guddi dafa bokk min zahiri ramadan ñaarel ba ata nangul yalla ci misal silatu rahim di jokk bokk wéru ko di ci jokk bokk lo ci man gën ko renforcer képp ko xamantene xawon ngeen am ñagaf ñagaf ci say bokk defara mu jàpp wa taqdimi sadaqaat di génnee ay sarax di joxe lii tam ci mandal ne la bokk wa birril waalidayni bu dee sa ñaari waajur bu ñuy dund wala kenn ka nee na fexe ba seddal seen xol bu ñu dundul la ñu jur nga fexe ba seddal seen xol ak it wa talabul fexe ba xam-xam la nga ca am ba nga am ci xam-xam fexeel ba yokk ko weeru ko nga am ci crédit ci xam-xam bu weeru koor jotee fexeel ba yokk ko renforcé ko gën a yokk say àlluwa moo tax del déglu tafsirul quran yi del fekkee majalis yi del déglu yi xutba yi nga xamante ne moom la ñuy wax ci àjjuma di koy wax ci yàlla li yàlla wax ak li yonente bi wax boo ko mënee omra ji ci weer gi itam baax na ndax yonente bi nee na omra ci dafa tolloog na ànd ak dem aji yal na yàlla di koy yombalal te itam fexe ba yoor yoor bu jotee am na ñoo xam bu ñu salaatoo ba lekk ba pare rek julli nañu di nelaw xam nga fan lañ ko jëmale quatre heures te ngoon erreur dundaluloo wéeru ko salaatu duha mooy yoor yoor dañu war a jóg def ko yonente bi ne boo ko defee ñaari raka ci yor yor ndax neena bés bu nek dina wara a sax sa bo leen yaram ñetti téeméer ak lu tegal mu ne nag boo defee ñaari raka yobalé na loolu mooy ci dé wa sabbi bi hamdi rabbika bil ashi wal ishraaq fexeel yor yor nga jox julli def ñaari raka lu mu tuuti tuuti wala nga def fukki raka ak ñaar say yi julle yitam na fexe ngay maintenir say wirdu subhanallah walhamdulillah ak yoy non yonent bi nee oyof na ci lamiñ waaye dara génn ko 10 ci la nga xamantene ne ci balance bi kon fexel itam mazahir yoy noonu nga di koy sàmmwante ñettel ba adduwa del ñaan weeru ko weeru ñaan la ndax fa ida saalaka ba muy wax ci aya yi mu wacce soro ci suratul bakara ci wax ci walu koor dafa ne wa ida saalaka buñ la laajee ibadi anni fa inni ma jege ujiibu da'watallaahi gis nga ci alquran question yi bari na li ñu laaj yàlla waaye li ñu laaj yàlla dafa ne fa qul waxal yasalunaka anil mayyit qul yasalunaka anil yataama qul waaye li mu yegsee nag ne laaj ma buñ ma la laajee laa sa'alaka waxul fa qul inni dafa ne fa inni dafa tontu directement yow muy laaj ujiibu da'watallaahi idaa da'aani nee na loo ma ñaan lan moo tax mag ji bu ñu soxla woon ñaan woor parce que ku woor yàlla bindal la ñaan kon occasion la bëccëg bi la muy gudd noonu ci yow nga bu ko jeexal ci ay nelaw na la woone say doléance yëpp mën na ciy fan man ngaa jóge ci wéeru ko sa lépp ubbeeku parce que ci ngay jël say dossier yëpp dugal ko ndax loo ci ñaan yàlla yàlla nangul na ko ma ko wax de mais boo demee bay ndogu yàlla may na la ñett bokk na ca ne la loo ko ñaan bi defal Di bi nga nekkee ci koor bi fajar be ngon ba nee na loo ci ñaan yàlla nangul la ko kon occasion la del ñaan motax alayhi salatu wassalam sawar lu julli pour muy xeddi fajar ta saharu fa inna fi suhuri barak lu mu tuti tuti bo fajar pour war a xeddi da nga tuddu yalla ni bismillah da nga man rabbi ixfir li yalla jéggal mana yalla yonente bi dafa wax air bobu nonu jogal da nga gis ci wax ma fajar man dumay xeddi fajar dafa am lu tax yonente bi ni du ma xëdd fajar bu ma kenn yee xanaa doon fajar parce que dafa bokk ci waxtu yi gën a sell ci yàlla yonente bi nee na waxtu bi yàlla di woo jaamam di leen di defal lu ne bu demee ba fajar di waaj a xotti kon noonu heure bu baax la audience la sa diggante ak sa borom nga ñàkk audience ba nag jël ko ci ay melo ne bu ma kenn yee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 إن الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه ننتلب الأذكار في خلب بس بي يدكو في خلب أقضي قال الله تعالى وسبب بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من اللوم تدفن moom yàllaay wax ne ne yow sama jaam ne forcel sa bopp ba heure bi naaj bi di fenk na la fekk nga di may tudd te di may sant ba di lay yokk fexeel itam balaa naaj di fàddu na la fekk nga di may tudd di may sant ba di lay yokk xoolal nag ñaari temps yu baax yooyu surtout temps bi nga xamante ne moom mooy bu timis di waaj a lu ne seytaane dina ko def pour mën laa gàllankoor rek nga jokkoog sa borom demal ci ñi nga xamante ne moom mooy yi ñu invité ci suñu biir kër yi mooy écran yi ak télé yi ak programme yi heure boobu noonu la ñuy toll ci sommet bi ñiy def théâtre yi ñiy def publicité yi ñiy def lu ne mooy waxtu zoor waaye gis nga seytaane moo ñëw pour man laa fàttaloo sëlëm la pour bul jox ko borom bi tabaraka wa taala parce def la soxla heure boobu noonu ngay war a ndogu loo ñaan yàlla defal la ko war a toog ak sa njaboot di leen di régler di leen di woon yenn yi di dugal ci ñoom yenn njàngale war di xool sa njaboot kenn ku ci nekk fi mu féetee nga jàng leen yar leen def ci ñoom yarul islam heure boobu noonu nga perte ko ci lan ci leneen ak kon fexeel ba heure boobu noonu na la fexe ci jokkoo borom bi tabaraka wa moo tax bu dee ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël wirdu yi par suba teel tariqatu tijaaniya gën ci farlu bopp ku ci doon tardé dina farlu ci suba si ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël tariqatul muridiyya wirdul maxuuf tam nañ ci farlu ci góorgóorlu au moins na doon bon taalibe ci biir weeru koor waaw ah, na nga ko fexe ba fekkee ne sax da ngay génn sax da nga nekkaat mauvaise waaye ci biir koor moom fexeel def ay actif be yow ci sa bopp nga mën a bokk ci yu baax ñu bokk ñi nga xamante ne. wuyoo nañu seenu tur bu dee ñaareel jëlu la ko itam xanaa doo bañ askaaru sabaa wal masaa yonente am na yu ñu waxoon ne ci xadis yi wér ne lii da koy jàng suba teel lii koy jàng par ngoon itam nga ci saa soo demee bay lekk wala ngay naan ci guddi weer koor bi del ci bi yàlla geste yi booy sol say dàll tuddal boy sol say yere tuddal yalla boy dugg ci nek tuddal yalla boy dugg ci wana wala ngay génne tuddal yalla ben bu ci nek yonante bi jangal na la noo fay tudde yalla kon yoy bu wéeru ko jotee nga doon bon muslim ana jullit bu baax bo xamantene da fay melni turam di tuddu yalla ci mboolem des bo gisé lu la yéem boy wax sa njabor lu nek nga bolé ko tuddu yalla jalla jalla ndax yonante bi neena bo gisé ngelaw bari ci sa tuddal yalla bu naaj tàngee tuddal yàlla bu sedd jógee fu nekk lépp lu xew rek yonente bi wax na la ne lii wax ko fa tudd ko fa bu guddi ju dot waxal li bu bëccëg di dugg waxal li lu ne booy dugg ci jumaa waxal li te loolu yëpp ay xeetu lan la ay xeetu tudd yàlla boo demee ba weeru koor jot nag fexe ba yooyu yëpp nag nga maintenir ko ci sa bopp di koy defee noonu ba ca tegu juróom-benneel ba as sunan fexeel ba sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg nga saxoo ak moom nga dem ci xadis mu ne man salla isna achara rakaatan fil yawmi banallahu lahu baytan fil janna ne na fukki raka ak ñaar ku ko julli ci bés ne na yàlla tabaxal la nit ci biir aljanna kon nawaafil yi ñuy def mooy taraawih yii nii fexeel nga di koy dund di koy fekkee am na ñoo xamante ne ñu nga amee ay jàngoro yu gën a métti say jàngoro yo te ñoom ci seen bopp ñu ngay fexe bay fekkee koy def loolu dafay dundal li ñu tuddee shahru dafay dundal sa xol bi ko dafay dundal sa ruux bi ci weeru koor ñaar rakay def ko ci éram waaye di nelaw a nelaw a nelaw ba dix heures nga jóg amoo ñaari rakay fajar bala ngay julli tisbaar yonent bi ne ku julli tisbaar avant nga julli ñeenti rakka ñaari selma nga julli ba pare ñaar selma muy ñeent nee na boromam yaramam yàlla xaraamal na ko ci safara kon fexeel koy def mu ne boo jullee takkusaan dafa ñaari ak li ci yonent bi wax gannaaw timis nee na ku julli timis juróom benn rakka mooy ñaar selma ñaar selma muy ñeent te ba nga koy def waxoo kenn ci diggante ba yonent bi neena yalla wacce na la ma kon bobu itam baxna ci weeru ko ge bala ngay julli ge bi naka non tax ci al qudsi yalla dafa wax ne pour nga jege ma pour ma sopp la il faut que nafila yi mo di ci forcer sa la ya yazaalu la abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ba pour nga don sama xarit man yalla il faut nga ak nafila yi nga di koy def ba ca tegu juróom-ñaar alquran weeru koor mooy shahrul quran ñu koy faral di wax ndax yàlla ci bopp ma ne unzila fihi alquran nee na alquran bi ci weeru koor laa am na lien bu dëgër bu nekk diggante weeru koor ak alquranul karim dina ko doon jàng waaye bu weeru koor jotoon jibril dafa doon ñëw li mu jot a wàcce ci moom yépp ñu rafisé nafar ko ci wéru ko ana kaamil bi la doon jeex na bokk na ci li ma seetlu est ce que dawel dina ma fi fek moy ne atam bu mujju ci kaw su wéeru koor bobu non jibril dafa ñëw ñom ñaar ñu nafar be sar bi jeex mu delu na nako nañ nafaraat ñu wat nafar ki mu ne ko lii ma soko def mu ne ko parce won ne weeru koor ak loo sàggan sàggan fexeel nga def ci kaamilu alquran bu fekkee ne yow mënoo toog di koy liir xanaa man nga wax nag yëkkati sa lam nañ wax bu la yàlla may occasion yow fi daara yi nekk mu am ñu toog di jàng alquran nga ñëw toog ci seen wet di jàng alquran ndax boo toogee muy jàng alquran ak yàlla daf lay considéré comme ñuy jàng alquran kon nga fexé sawar ci bu baax forces ci sa bop bu dee am na koy jangé te nga gis ko té té loolu ci kenn bu boobaa nga tax bi yegg dem adat ñu jang alcorane lu mu jeex ngeneen la dé kon loolu yëpp daf lay won ne wéeru koo alquran def ci am solo nga di koy jàng boo koy jàng nag bi tadabburi wa tafakkur de koy teewlu di jema xam lu muy wax bu dee ne jéemaloo bu dee ne mënoo ko xam ngir làkk ba kon bu boobaa fañ koy firee nga ji fexe dem dem di koy fay déglu te am na benn système boo xamante ne boo ko defee presque que boo wéeru koor bi di jeex rek ngay jeexal arboo safahat mbaada salaatil mafruud bi maanaam nusxatu kaamil bii ñuy jànge mu gën a siiw boo jullee tisbaar jàng ñeenti paas mooy ñaari kayit julli takkusaan jàng ñeenti paak mooy ñaari kayit timis noonu gée noonu fajar noonu bu boobaa bu wér koor di rek mën nga am kaamil bi xoolal ma loolu système boobu sonalu la jëlul sa temps ñaari kayit yàggul te gis nga buñ lay wax xaafisul quraan mooy taalibe am na li tax ñu di koy forcer pour mu mokkal alquran mooy mu mën ci am lu bëri ci diir bu gàtt waaye duul nag mu doon loo xamante ne daf koy médaillé rek dem toog parce que da ngay gis kuy forcer boppam balaa wér ko di jeex mu jeexal kàddu moom mi nga xamante ne xaafisul quran la boo mooy sax ko jeexal parce que dafa ci yitte dafa ci fayda te temps moom bés bu ne mën na jàng kaamil bi ci sax loolu saxiixul mu jara gis nañ ko ay xaafis yoo xamante ne bu ñu toogee suba nii balaa ngoon ñu jeexal kaamil ñoo xamante ne bu ñu minuit balaa fajar ñu jeexal kaamil kon li lay mokk liñ lay mokkalloo pour nga mën ci nga mën lu bari la bu dee dangaa def nag juróom-ñetti safa mën nga am ñaari kaamil kon bu dee ñeenti safa mooy ñaari kayit balaa weer bu di jeex nga am kaamil ba'da kulli salaat boo julee rek def bu fekkee ne juróom-ñetti ngay def maanaam juróom-ñetti safa mooy ñeenti kayit bu weer bu di jeex ngay am bu fekkee nag dangaa def douze kayit maanaam douze safha bu weer bi di jeex rek nga am ñett ñetti kaamil yooyu ay système la yoo xamante ne ci jamono mën na laa nga mën a jàng alxuraan lu bëri te du jël dara ci sa temps bi ñu tëjee ko nag julli ñu mazaahiri taqwa fi ramadaan ndax yàlla dafa ne la'allakum tattaqun ragal yàlla di mën a fay ci yéen nga ngeen mën a baax ngeen mën a defar la lay baxal defar la nak yi moy mandar bay ba ca muju moy julli julli alayhi salatu wa salaam ahabul amali ila allah as-salatu fi awqaatiha lépp loy man def ci kaw suuf yàlla nee lima gënal moy waxtu julli jot na dem julli ci fexeel ba di koy wax julli ci waxto inna salata salaata ala al mu'minina kitaaban mawquuta xolal jihad bi mettee nga jël sa jaasi jakarlo ko mu bugg a jël sa bakkan yow heure boobu noonu mu bugg a jël sa bakkan yàlla ne julli bi ba léegi teggee ku sa bakkan bi sa bakkan bi fi mu mën a des jaasi baa ngi nii tiimu la xeeju baa ngi nii tiimu la te yàlla ngay xeexal na parce que dangay xeex pour kaddu yàlla kawe heure boobu noonu yàlla ne deet maintenir julli bi inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban bu dee ne foofu la la ko yàlla waxee kon lan moo la mën a daal da ngay puus julli tisibaar nga puus ko takkusaan nga puus ko timis nga puus gée nga puus alayhi salaam bu wéeru koor joto wala système bu rafet bi buñ ne allahu akbar noddu rek mu jël tàndar wala tàndar ñor na ba pare defar na ba pare mu ne jëlal ñaari tàndar nga dugal ci biir nga gis ma ba ca nekk ndax ñamu tàndarma ak suukar bi dafay gaaw a détaché wu ci biir yaramu nit ki balaa muy am benn minute rek loxo baa tànk baa karaw baa lépp jot na ci lekk bi parce que dafay gaaw a tasaar boo jëloon mburu du gaaw a tasaar noonu ay bu dee tàndarma nag dafay gaaw a tasaar mu ne boo ko amulee jëlal ñetti guux guuxal guuxal mooy ndox boobu itam nga gis ni mu gaaw a tasaaroo ci yaram bu ko defoon kabar julli nii la doon def waaye ñenn ñi bu timis di wàcc takkusaan la ñuy commencé wala tisibaar di teg palaat bi la ñuy tuddee façon xeet bu nekk ñu teg ko fa royal gis nga bu ñu tiimoo palaat bi di commencé di lekk fekk parewuñu duñ dem julli ci balaa ngay pare waxtu bi rëcc na parce que timis dafa gàtt waaye xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam système bu mu def mooy bu yegg fee rek jëlal tàndarma lekk wala nga jël ndox naan jóg julli nak bo julle nak voilà bu boba nak man nga mu nek ci fi man nga ci pare kon loolu yeb di ci baye xel par wéeru ko waxtu ni de koy respecter ci bar ci waxtom takusan ci waxtom timis ci waxtom géej ci waxtom amna ñoo xam bala ngay julli ke ken xam ban ter waxtu ba dina pass nga ñu wax naan. dee nu mu gën a guddee gën a baax yonente bi wax ko waxtu gee bu nga yem ca vingt trois heures mooy waxtoom waxtul muxtaar waxtu daru daruriya moo dem a dem dafa jaar waaye am na ñoo xamante ne bu ñu ndogoo nag après jog nag génn ñu nga ca restaurant yi ñu nga fee nga fee fu nekk ñu dem fa balaa ñu dugg faa seen kër bu moytu ay deux heures trois heures bu ñëwee julli boo moytuwul toog tuuti ñu baax na toog tuuti ba xeddi jot ñu xeddi après euh, door a tëdd bu dee ñenn ña bu ñëwee sa seen yoon nekku ci dañuy lekk ba suur ak tëdd moom ne xeddaale na balaa ñuy jóg ca huit heures ga wala ca neuf heures te sa liggéey nga war a xëy ci société ba mu gàddul la sa dépense kër boo respecté wul waxtu bi mu daq la nga jóg heure boobu noonu ak lu la nelaw manti jàpp nga jóg dem liggéey pour bu weer jotee ñu war laa fay du la dàq waaye yàlla nag yàlla nag yàlla woo la fajar ñëw la waat la fajar ñëw waat la fajar ñëw la yaa ngi ne la nga bugg a tegal yàlla ne damaa sonn lu tax waxuloo directeur bi damaa sonn kañ moo ñemee dem ci directeur ne ko ah damaa dama doon nelaw ñemoo ko parce que danga war a respecter la nga waxante moom yàlla bi la moom nag defal la lépp ngay noyyi di def lu ne war na mën a respecté ya nga xamante ne moom mooy ay digle kon julli na nga fexe ba respecto respecté ko bu yéen ko def ko ci ay eeram bu gisee yàlla ne ko def leen ko ci eer bi fekkere ba foofu la nekk ilam bi ann afdala taati salatuna fi awalil awqat saay soo julle ba pare nag nga fexe di jàng ayatul kursi alayhi salatu wasalaam ne képp koo xamante ne saay soo fajar saay soo jullee farata teg ci ayatul kursi nee na dee moo nga dugg aljanna au moins bu dee ne amuloo temps koy def lu dul wéeru koor bu wéeru koor jotee boo sëlmalee bul jot nga jàng aayatul kursi ba mu mat yonente bi nee na dee moo ci biir aljanna yàlla yàlla aljanna bu kawe ko allahumma aati nufuusanaa taqwaahaa wa zakkihaa fa anta xayru man zakkahaa rabbanaa ixfir wa israafanaa fi amrinaa wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa alal qawmil اللهم انك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزله وسع كل خلق واغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الأبيض من الدلف اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما سار إليه اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تقول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحاول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا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 subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin